waaw ah, dafa am lu ma doon laaj quoi moo tax <laughs> euh, Cheikh Tidiane Gomis euh, alliance pour la république ñu daal di bàyyi nga dugg ci tàggat yi jeux olympiques euh, yi am fële ca Tokyo <laughs> ci biir at mi waaw Gomis lan la jàmm fas sa kanam de loxo ku la ah, tooñ ah kon je suis fier de moi je suis fier de moi dëgg la waay la dëgg la waaw. ni nga nekkee ci kër gi ñaaw na. dëgg la. Fatka. Mhm. ku bon nga. ah en tout cas man daa Fall Ndiaga Yaara moo ma woo defal ma proposition yu am solo yoo xam ne aw ma ko woon ci yow bàyyi la daal di dem ci kii. xam euh, demoon nga fi ñëwaat. kon nag man sa dem du ma dem naa daal te du ma doo ñëwaat waaye baax na. sama bopp maa ngi koy gis fële. sa yaay de lim la wax sa am na lum la wax de. Fane Ndiaga yaara maa ngi koy nuyu. man sama nuyu bu xaar ba ma nuyu ba nga soog a di boole. nii de. kenn na ma ak Charles dimbala ma ak Charles. voilà jërëjëf. léegi nag euh, xam nga tey jii. tey la uh-huh. tey. Uh-huh. bu ñuy wax tey la tey ci wàllu tàggat yaram. Uh-huh. dafa am loo xam ne. procès Lamine Diack. Euh, Lamine Diack bëggoon ko lool pour setal deram kon nag tey jii mhm. euh, dina nekk loo xam ne pour euh, nit yi mën a xam ne man tubaab yi ba seen jëmmu bopp tubaab yi dégg nga. Mhm. bu ñu waxee rek dañuy juger nit ku ñuul rek. Mhm. dañ ciy sawar. waaye bu dee noonu ñoom seen bopp la non non mais nit ku ñuul ñu ci africain ci ci réew tugal. ñu koy euh, kii dañ dañ ko buntu xataal ba yóbbu ko poosé loolu lañ bëggoon ak Lamine Diack am nañ ko waaye nag Lamine jaaj serein comme dina toog setal boppam ci li nga xam ne li na moom mooy loolu mm. euh, kon léegi di wax ne rek mm. que maanaam euh, tey benn journaliste français dama ko dégg mu naan mm-hmm. dégg nga muy wax mm. ci maanaam Lamine jaaj maanaam li mu mel ak li mu liggéey ci wàllu athlétisme tey athlétisme seen euh, Afrique Afrique bu demee ba euh, ki dox ba baax ba ñuy am ay médailles d'or Lamine Diack la. Mm-hmm. bu ñu demee ba Sénégal amoon fi benn médaille olympique ak médaille euh, d'or athlétisme Lamine Diack la nañu waxante dëgg. Mm-hmm. li mu liggéey li mu liggéey am na ñoo xam ne ñoo dàq sàcc France. ay sàcc ñoo fa ne Platini yaa ngi ni maanaam dañ ko euh, guerre ñu jàpp ko ci guerre flagrant délit mu ngi ni delloo na xaalisam dégg nga jàpp te kenn jugé wu ko dégg nga parce que français la bataille kii kii médiatique bi ñu def ci moom ci Lamine Diack loolu moo ñaaw loolu moo moo jaadu mm-hmm. moo jaadu mm-hmm. tey nag comme que nag tey la tey mm-hmm. waaw euh, dëgg daal dana feeñ te ñu bàyyi xam naa nag dinañ jéem lépp leen pour teg ko ci koom mais loolu yëpp nañ ci ñëwaat incha allah mais coach bala bala ñuy dugg ci leneen am nga yaakaar ne doom ji dina teew. noo du teew du teew li ñu bëgg a li li ñu def baay bi. Mhm. moom la ñu bëggoon def euh, doom ji Massata Diagne. Mhm. dem tëj ko mhm. résidence surveillée. du génn du nangam du yooyu yëpp yëpp tappale yooyu la buggoon def. léegi nag moom nag mu bañ. mais avocat mi dinañ fa taxaw wax ko. quel que soit am waaye man. man su doon man su doon man. dégg parce que am na euh, su doon man. man maay Massokhna Diagne man damay dem. damay dem taxaw. taxaw wax. vraiment dégg nga comprendre nga. Mhm. Euh, wax fi affaire yi jaar comme ça les moom mu mën a seetal boppam en tout cas daal. Mhm. li am ba am mooy. Mhm. tey la tey. incha allah yàlla euh, suñu maam jooju yàlla na génne ci jafe-jafe yi ci jàmm ak dana ci génn incha allah am nañ ci yaakaar bu baax a baax euh, dana ci génn waaw kay bala ñuy dugg ci olympique Salma Ibrahima Fall nuyu naa la commencé nga de commencé nga nag samay temps ngay jël waaw mais du ma nuyu ah bokkuma ci xew mi yow it. non c'est que yow oh, yow foog ci xew bi dafa nga bokk ci xew bi. yaa may ah, nekk fii waaye yéen ñëpp dàq naa. Euh, ok dàq na ñëpp. Charles on prend note. waaw ah, dàq na ñëpp dem. suñu ballon d'or bi nga xam ne dàq ma ne semaine di ñëw yëpp dëgg la waaw ma ne mm-hmm. ok bu eh, kenn ñëw ci man nag. kañ nga may bàyyi ma nuyoo. vraiment sa temps mooy dem ay jëm nuyoo gaaw. maa ngi lay <laughs> nuyu Fatou. bu kenn ñëw ci man di nuyu l'international suñu marron beige. déet ah, di nuyu ah, Mamour Diaby. ak it euh, euh, ab du xuddoos l'ami de certaines jeunes filles ak it euh, les amis des téléspectateurs. xuddoos <laughs> <laughs> daal dañ koy tàkkale ay tàkku yu am solo fii fay nañ la bu baax Salma Ibrahima Fall ñëpp dem nañ bàyyi ko parti bi moo structuré wul moo tax ñu dem bàyyi ko. man damaa bëggatul sax bàyyi na ñëpp dem bu kenn ñëw ci man nag. <laughs> bu kenn ñëw ci man tamit amul. bu kenn ñëw ci man man kese man bàyyi leen ma man ma demal sama bopp. d'accord voilà léegi nag ma ñëw ci Jeux olympiques 2020 sànq dama ah. doon wax ne. ñu ngi dem at bii la. Mm-hmm. at bii ci été bi. at bii la ñuy dem Jeux olympiques fële Tokyo. Mm-hmm. heure bii may wax ak yéen déglu leen bu baax li may wax bii may wax ak yéen. Mm-hmm. benn athlète sénégalais wala sportif sénégalais mun mënu la ne qualifié na benn athlète benn athlète nañ ma ko wax ana kenn kenn mënu laa ne qualifié ñii dootuñu dem am na sport yoo xam dootuñu dem ne football éliminé nañ ko football éliminé nañ ko basket jigéen ñi éliminé nañ ko Macky Sall ci ñooñu rek la yaakaar éliminé nañ leen. léegi ba nii nii nii. doo dégg lu ma la wax ba heure bii may wax ak yow amul kenn koo xam ne mën na la ne qualifié naa kenn qualifié ko ma rax ci dolli leneen ñi nga xam ne sax dañoo yaakaar qualifié. na nga dem ci ay tournois qualificatif ñooñu tey jii boo leen laajoon ndax yaakaar ngeen qualifié fii dañ lay naan yaakaaruma ko. lu tax loolu ko parce que dagg dëgg dañ leen raw ci liggéey bi dañoo dépassé ma jox benn exemple rek nga jël handball jigéen ñi ñoom fu ñuy qualifié xam nga wala tournoi bi xam ñan la ñuy euh, euh, kii ay ñoom Argentine ay ñoom ay européens. da nga def ne ñun suñu suñu àndal bii mën na gañe ñoom nañu waxante dëgg ni da ngay wax dëgg mënu la jaar foofu ba qualifié yàq xaalis sax lañ fa nax a def yàq xaalis lañ fa nax a def duñu qualifié basket go tournoi bi boo xoolee ñi mu nax a dajal pour dem ay waa États-Unis euh, ay pays euh, kii euh, kii yu Amérique du Sud ay pays européens ay nangam nañu wax dëgg nañ sori seen bopp duñ dégg nga nga demaat ci yeneen discipline yi benn discipline tey boxe président boxe maa ngi koy wax dégg lu mu wax kooku au moins nangu na nee na man de duma ma wax benn journaliste ne tournoi qualificatif pour jeux yi bu ñuy def fii Sénégal xoolal de Sénégal lañ koy defee de mu ne comme que fii lañ koy defee waaye assuré wu ma kenn que ñun dañuy qualifié moo ko wax. c'est un problème de de ou c'est quoi réellement. c'est un problème de moyens et de préparation. Euh, Khoudous tu sais les Jeux olympiques du affaire bu ndaw gis nga pour qualifier Jeux olympiques demal ci yeneen dëkk yi ils te disent que pour qualifier Jeux olympiques. il faut préparer au moins, au minimum, tu dois te préparer au minimum cinq ans. Avant compétition. Avant que pour qualifier l'armée. Mais pour prétendre à un titre, il te faut 10 ans. Et là, Amadou Diaba, nous avons gagné l'équipe des Jeux olympiques, l'équipe médaille olympique, 10 ans. C'est un travail de 10 ans, mon 10 ans de liguer, processus étape par étape. dem dem dem di euh, kii dem di préparer ak les meilleurs quand Abdou Diouf ak Lamine Diack bi ñuy buntu xataal bi ñu ñëwee dañoo woo la euh, kii euh, Diaba ñu ne ko Diaba qu'est-ce qu'il te faut pour qualifier maanaam li nga xam ne la moom mooy kii bi jeu yooyu jeu wu sew yi mu ne man fi gars yi di entraîné ngande yi ñi ngande yi fi ñuy entraîné foofu laa bëgg dem entraîné Abdou Diouf daggal ko kii ne ko ci demal États-Unis mu dem di daw ak ñooñu compétition nii muy dawal ak di ñafe di ñafe moom sax moom moo man sax yu nekk saa yu dama koy man dama koy tooñ sax ne ko yow waxoon nga jël médaille d'or bi parce que dangaa gëstu dangaa ragal bu gëstu loolu rek jël médaille d'or bi mm-hmm. parce que doon soo ki mu doon soo mm-hmm. kooku jëlul sax kooku raw ko mais ki mu soowul moo ko raw jël premier médaille d'or moom mu jël médaille d'argent est-ce que comprendre nga loolu. ce qui veut moom euh, loolu moo yàq moo loolu la ñuy wax détail loolu moo yàq kon tey Sénégal dafa nekkoon nekk médaille d'or olympique mooy booy di xool course bi dama ne bon moom nag moom nee na non non loolu yaa di jéem a kii mais man nii li ma wax euh, li koy calculer muy calculer Moses ki nga xam ne moom mooy champion du monde bi moom lay doon calculer di koy soo. far keneen génn. raw ko kon ce qui veut dire bu sooroon ñoom ñaar dégg nga wala bu xamoon ne calculer que Moses mii moom kii na ko. éliminé na ko raw na ko kii na ko musoo kale di la jël c'est pour vous dire rek. Mhm. que moom il a fallu dix ans. Mhm. pour mu am loolu. Mhm. mais que euh, li nga wax nii si jamono amaan amaana ñi fi nekkoon dañoo amoon les hommes qu'il faut à la place qu'il faut te amoon nañ vision xamoon nañu luy sport. Euh, contrairement à jamono ji doo dégg mooy loolu moo amoon euh, euh, boobu mooy Lamine Diack mm-hmm. boobu maanaam li nga xam ne mooy athlétisme mm-hmm. dafa amoon benn fond fond bi ay trois cent millions la woon mm-hmm. fond bi y avait un fond logé quelque part ne athlétisme am lii nga am lii lii ba am ci ay médailles ci loolu la la médaille olympique ak jaba mu am titre de champion du monde athlétisme avec Ami Mbacké Thiam ci fond yooyu la et liggéey boobu la processus boobu dafa am liggéey mais depuis boobaa ba léegi daanaka amatuñu kenn kuy illustrer au pratiquement au sama fu mu nekk nii fu mu nekk nii mhm. kenn la ñu mën a yaakaar man boog sama xalaat waaye dana metti lool mooy Mbagnick Ndiaye judo ak taekwondo taekwondo parce que taekwondo ñi fa nekk ñii kii ñu ngi préparé ñooñu seen club ak bitim réew ñoom ñoo ak seen ak seen ak seen ak seen bopp ak seen euh, euh, ñoom ñoo ñefal seen bopp. seen moyen bopp seen moyen bopp di préparé wu. foofu la ñu mën a am yaakaar ak Mbagnick Ndiaye bu judo am yaakaar li daa wax de am yaakaar c'est pas sûr de kon ce qui veut dire gis nga jeu yi léegi nag xam nga lan la ñu wax xam lan lañ nar a am kon lu ñu yàgg di am rek ñàkk fayda ñàkk ful la xam nga mooy lan waaye kaar. mooy invitation Sénégal ñoo ñoo doy waar. suñu sport dem ba di nga xam ne ay invitation lay xaar ñu koy invité kaay leen bokk. xam nga looloo gën a ñaar ñaari invitation mooy am ñaar Jeux olympiques day ci lay naan état bi ñaar laa la invitation invitation boobu rek boo koy xool rek dañ koy jox soit deux fois dañ koy jox athlétisme ak natation waaye natation bu bon bii bu Sénégal bii xaw ma kan lañuy jël. fii dara mais ñoom dañoo amul ay ay ay en réalité euh, un programme aussi d' accompagnement parce que li ñuy faraatal fii muy basket ak football. Mhm. Euh, pare nañu sax pour organiser ay cérémonie de sargal. Mhm. mais li nga xamante ne moom la ñu war a investir ci secteur ci ci ci yenn discipline nga xamante ne mën nañu mhm. rapporter ils ne le font pas aussi. Euh, Khoudous benn affaire dafa am tey ji avec ces Jeux olympiques Macky Sall ñaata la fi dem. bii mooy ñaata at la def. mooy bon kon nangul wax deuxième wala premier mandat. bi bii mooy euh, euh, am na sept ans teg na ci euh, benn at presque. muy huit ans presque huit ans. Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir waroon na bu defoon politique sportive bu baax bu teg ci yoon en 2012 bi muy ñëw kon 2017 déjà am nañu ay athlètes yu pare pour qualifier Jeux yi. kon da ngay xool 2012 ñu ngi en 2019 léegi nag 7 ans 8 ans kon nag léegi trois ans yooyu ñooñu acquérir nañu ba mën nañ sax yaakaar une place de finale au Jeux olympiques bu doon liggéey na. loolu laa lay xoolal mooy accompagnement bi ngay wax bu fekkoon ne politique sportive bu baax am na fi. bu baax laa wax. mais loolu tam euh, ministre des sports moom moo war a asseoir mm-hmm. les bases pour au moins mu proposer que le chef de l'État liggéey ñu ñoom ñëpp liggéey ñu doo dégg li ma la wax dama ne ñoom ñëpp liggéey ñu xam nga ñu nga dafa am loo xam ne mooy dëgg liggéey ñu xam nga lu fi nekkee mooy euh, maanaam dañuy xaar ba euh, événement am bañ ne suba la ñu soog a jóg du ñu teel a yeewu da ngay yeewu ca fajar mooy maanaam da ngay gis gis nga xool dama lay wax euh, dafa am benn dafa am dama demoon kii Euh, man bi ma demee fale nu euh, ka sa Niger dama dem Niamey bi ma demee Niamey kii nga xam ne a championnat du monde yii ah, moom moo dem ba nga xam ne dana euh, médaille kii xoola man bi may boobu Niamey xam nga moo doon waaj mooy bi équipe nationale Sénégal doon ba Aliou Cissé yóbboon équipe boobu xoolal foofu moment boobu sa a fait combien d'années ça a au moins def na quatre ans boobu temps kooku kooku mu ngi ci benn processus boo xam ne pour jël titre loo tax tey di Niger ci wàllu athlétisme Niger nekk p euh, kii am médaille ñun amuñu médaille euh, euh, liggéey la xam nga. processus la nga xam ne da nee na on ne décrète pas une victoire victoire kenn du ko décréter doo xëy suba te rek saa loolu mooy lan foo ko teg ñun Sénégal nag noonu la du ñu commencé loo xam ne moom mooy euh, euh, kii parce que euh, booy booy booy daje ak ñoo xam ne am na ñoo xam ne pare nañu seen préparation dafa commencé dégg à bas âge gis nga bas âge boobu. loolu parce que dañoo war a investir mettre leen dans de bonnes conditions tàggat leen ba. bu ñu eggee ci yenn. Euh, yéen compétition waaye nag yow koo xam ne day ñëw compétition te parewul. Mm. kooku nga bëgg mu jël ndam. kooku mënul jël ndam de fii ci lii ci Jeux olympiques yi li ma leer mooy que qualification ah buy am de boo ma tuddee benn lay doon walla ñaar bu dee sax bu ñu yàlla jàppalee benn wala ñaar. ak ay invitation parce que ñun seen problème tamit infrastructure fi ñuy tàggatu tamit dafa amul. te ñu ngi koy waajal deux mille vingt deux mais mais mais moom laa leen waxal mais euh, euh, Khoudous comment se fait-il que nga bëgg athlétisme bu euh, la reine des disciplines aux Jeux olympiques yow kooku nga xam ne benn piste la amoon mooy Léopold Senghor piste ba baaxatul ñu tëj ko piste ba ñoo am xam nga ñuy entraîné ca suuf ca gannus ba ca géej ga. non loolu de c'est pas le. waaw mais non ana athlète. ak entraîner si géej. ci suuf waaw athlétisme. nga naan da ngay entraîner ca géej. ca suuf waaw mais day mbër. mais ana kooku lenn kooku nag lenn yow nga bëgg leen ak yow mi nga te mets pas à euh, niveau. par rapport à sincèrement sincèrement bu dee dëgg rek moo am nañu waxante dëgg te wax nit ñi dëgg mooy que ñun sport nu dañuy fo. et alors que ñeneen ñi foowuñu nee naa la benn cycliste tunisien bi ah, asubla algérien bi bi muy ñëw fii tour du Sénégal bi ñu koy il y trois ans ma ñëw foofu euh, kii euh, allée des centenaires fekk foofu moom mu kii ba pare ma teg euh, journal ma teg kii bi coureuru Sénégal bi teg coureuru algérien bi ma ne coureuru algérien bi yow pour préparer compétition bi noo ñëwee mu ne ma j'ai un euh, on benn salaire bu 5 millions. par mois par mois pour ma préparer li ma ne euh, kii bi sénégalais bi yow euh, kii bi sax mu ne ma dara. ndax. amateur quoi. dara waaw léegi nag nga bëgg yow kii 5 millions. yow kii. dara dara nga bëgg a kooku gagné kii. doo tax ndaare la jël Sénégal ndaare la jël ndaare la Sénégal jël c'est malheureux xam nga boo koy wax day nekk loo xam dañu def ne da ngay foo mais yàlla bi ma tiim Jeux olympiques yii di ñëw wax na ne lay feeñal nag maanaam euh, ñàkk xam-xamu euh, euh, maanaam sunu état ci wàllu sport ci Jeux olympiques yii mën naa ñu ko wax mais coach do ay cuune ay cuune lañu mais coach ma xangal ma jaaxal dafa am lu ma daan gis te gisatuma ko meeting de dakaar lu tax amatul te pourtant foofu ay champion yu bëri dañ fa daan génnee ci wàllum athlétisme ah. voilà euh, meeting de Dakar la muy jaay. Mhm. xam nga meeting de Dakar. Mhm. man man maa ngi rappelé booy bu ndaw laa. meeting de Dakar Léopold Senghor. da daan toog. Abdou Diouf bi ko wutu dafa daan toog moment de kii nag mu neex rëy waaye léegi ah, gars yi dindi nañ ko sax ci kii bi. ci programme mu euh, IAAF parce que Sénégal mën na ko mënatu ko organiser organiser bi mooy lan organiser bi mooy lan yow mu sax organiser ay euh, pour benn budget budget deux cent millions wala trois cent millions pour organiser benn rendez-vous sportif. loolu mooy raison bi coach. waaw amuñu mënatu ko organiser mënatu ko organiser. ana kër gi ana koppar fédération bi day daw fu nekk di fëgg fu nekk. Mhm. fëgg fu nekk fu ñu jox ko. Mm. kenn moo ko doon jox parce que comme que mini la. Mm-hmm. mairie bu Dakar moo ko doon jox cinquante millions. d'accord waaw budget wu trois cent millions quatre millions boo ko joxee cinquante millions fu mu jëlee leneen li. c'est loolu day day métti en tout cas. voilà c'est des sports en tout cas loo xamante lu am solo la woon parce que euh, champion yu bëri dañ daan génn ci li nga xamante mooy meeting de Dakar war nañ koo indiwaatee. doo dégg dama ne la ñu toog nii ñun ñun ñun fu ñu nekk nii billaahi wallaahi tàllaa uh-huh. ñun sport ñu dañuy fo dëgg dëgg uh-huh. sport ñun fu ñu ko teg uh-huh. ah ñu ngi ko teg ci mbirum foo parce que doxuñu ko àqam doxuñu ko gëddëm dañuy dañuy dañuy politique rek ah mataa Ba ma dañ ko doon sargal maa ngi lay jaajëfal dégg <laughs> gëm sa gaañu fara njaago ba ca Paris loolu wax loolu moo gën ah. waaw Matar Ba dañ ko doon sargal démb